fitna yi amee mhm. euh, sëriñ bi ku ne xam ne ni jàmm rek mooy itteem mhm. dafa yebal délégation boo xamante ni ñëw nañu euh, ngir euh, mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñëw séq yëf yi ba jàmm mën a dellu si bi loolu amee nag moom ku ne xam na ni lu mës a xew ci senegal ci lu mel nii dugal na ci loxoom lii itam bi mu waxee ba jàmm ji ñëw yamu ci dafa yëkkati lu tollook juróom fukki million jébbal ko ñi nga xamante ni dañ cee am ay gaañu gaañu ak ñi nga xam ni seen i njaboot ñàkk nañ ci ay ay nit loolu nag euh, tey jii ginnaaw bu kilifa yu doxee liggéey bi ba noppi moom la daar Hizbut Tarqiyyah yi ñëwoon tey di ko jébbal ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñëw ko. waaw ci niñ ko ci niñ ko séddalee mooy am na ci ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan am na ci ñoo xam ne itam dañoo am ay gaañu gaañu gaañu gaañu yi nag bokkuñu maanaam ay degré métit ci sukkandiku yi nga xamante ne docteur yi def nañ ko am na ci ñoo xam ne gaañu gaañ yi métti na lool am na ñoo xamante ne métti na waaye yeggul ci lool am na ñoo xam ne it gaañu nañu waaye yeggul ci yooyee ñu wax ba tax na kenn ku ci ne séddale bi itam ci noonu rek la demee ku ci ne euh, par rapport ak euh, méthode bi nga xamante ni moom laa am ñu seet li nga xamante ni moom la seen bi yëkkati lu ñu ko jox mu jëm ci wàll euh, bu fekkee ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan moom am nañu ñaari million am na ñeneen ñoo xam ne am nañu million am nañu am téeméeri junni noonu lañ ko toppee bu dee recensement bi itam yàlla dogal na am nañu ay représentant Dakar am nañ ko Kolda am nañ ko Ziguinchor am nañ ko Kaolack fenn fu ci nekk itam